ñu yàlla mayee ñu présider la finale de la coupe du maire mondiale la première édition ci euh, stade bi nga xam ne inauguré nous euh, def ñu def ko ci fair play ci discipline ak sportivité loolu ma félicité féliciter toute la jeunesse de Ngoundian. je di remercier le conseil municipal de Ngoundian. parce que man sama xalaat laa yore waaye tey bu ma ko mënee def conseil municipal moo ma jàppale wax naa ko léegi di tàmbali ci maire yi Pane Ndiaye ba ki mujj ci ci conseil yi gërëm naa leen sant naa leen parce que man Ngoundiane rek moo ma ñor ma teg ci Sénégal kon bu ma yàllee ma am mébét ne dañuy jàppale jeunesse su Ngoundiane jeunesse su Sénégal yëpp bëgg stade am ñu ko am am ñu ko amul yàlla def ñu am ko kon damay sant yàlla di féliciter jeunesse su Ngoundiane ci fair play bi ñu àndal ci dal bi ñu àndal ci yar bi ñu àndal di wax ne du ñu yem fii tey lañ doon voté budget conseil municipal Ngoundiane wax nañ leen bu ñu yàlla mayee l'année prochaine ñu fekk ko dinañ leen defal ay projecteurs ñu joué nocturne bu ñu fa jógee dinañ leen defal terrain gazon synthétique ñu fiy football. parce que nag talent yi nekk Sénégal yëpp di nekk bitim réew jóge Sénégal jombul doomu Ngoundiane parce que xam doomu Ngoundiane xam ne ay nitu jom lañu. Ngundian amna na haut de haut cadre Ngundian amna de grand dirigeant d'entreprise Ngundian amna ay ouvrier Waye dama bëgg le mouvement sportif Ngundian mu am des talents des footballeurs des basketteurs et de grands lutteurs Lool moo tax tey ma am mbégte lool di remercier gan yi nga xam ne nañ fi tay jogé partout dans le département de Thiès dans la région de Thiès Tivaouane waa Ñaaxeen ñi ngi fi waa Njeyeen Sira waa Touba Toul wa Xombal wa Thiénaba wa Tasset wa Tivaouane waye ñu am gan également sama natango di président Omar Ba di président de l'association des maires du Sénégal jiite ko man ma topp ko de général mu def ma mbégte fekk ma fi ci Ngoundiane sargal ma maa ci contane lol di remercier la jeunesse de Ngoundiane di féliciter les ASC toutes les ASC mais plus particulièrement ñaar ñi nga xamné ne ñoo gañe tey muy l'ASC Samel mais également l'ASC Xan Faxan ci cadeau yi di wax ne di lancer un appel à la jeunesse sénégalaise nañ leen woo ci fulla ak fayda nañ leen woo dans le civisme nañ leen woo dans la passivité amul benn homme politique bu war a sénégalais ci fitna ñu jeunesse bi ñu koy wuyu ci fitna nañ leen woo ci jàmm ci dal c'est l'occasion pour moi ñu lancer un appel pour la sérénité dans ce pays cette jeunesse mérite encouragement cette jeunesse mérite ñu jàppale leen ci liggéey ci sportivité

plus que ça la jeunesse mérite plus que ça Nous avons envie lu ñuy envier ku nekk Thiès wala ku nekk Nous dañ ko bëgg décomplexer dans l'état d'esprit d'abord, dans les infrastructures mais également dans le comportement C'est Thiès Dakar di dans les grandes capitales ñu xam ne jombul doomu Ngoundiane loolu moo Nous suñu solo nous un nouveau un des priorités ñu aller vers le développement bu ñu ko gëmee mën nañ ko def te loolu mooy suñu ambition